politique dafa ñëw ba ci man ma waxtaan ak moom daal ne ko gëmal sa bopp li ci kanam rawali bët waaye tey waxuma Thiès waaye Sénégal yëpp rafetlu nañu ba Mamadou Thiaw ñëwee ànd ak ñun ci biir politique bi Mamadou Thiaw am na jom am na fit te nit koo xamante ne su jàppee du bàyyi ndax mi ngi jàpp ci ginnaaw président Macky Sall te du ci bàyyi dara. kon ma seere leen yéen ñi dëkk ak moom président am na ci moom lu ma wax ne yaakaar ndax ku jël sa projet bi gën a mag ci say projet teg ko ci sa loxo kooku am na ci yow yaakaar kon ngeen gën koo jàppale ndaxte soo leen ko jàppale jàppale seen bopp jàppale Sénégal di nuyu sama rakk di sama xarit di fierté ci ñun muy le président de l'AIBD monsieur Ablaye Dièye. bon Ablaye nag. Ablaye taxaw ci ko li mu man mooy li ñu bari manul mooy tabe Ablaye dafa tabe tabe ci alalam tabe ci cër. loolu nag nit su ko amee suy def politique day yomb ci moom président deful erreur moom la tànnee du woon erreur man ba ma ko koy wax ak di ko wax fu ne boobu ñu bare xalaatu duñ doon xamaguñ la waaye tey gàcceloo parce que mënoon naa dem ñu dem ba ci biir nga wane loo xamante ne dinañ ne docteur ki nga ñu doon wax ndekete du waaja waaye alhamdulilahi rabbil alamin ki ma leen doon wax mooy waaja di nuyu jigéen ñi su ma tuddee sama sœur sama xarit soxna Ndeye fàttu njaay loolu ñëpp ñëpp war nañ koo nangu moom sama digganteeg moom du tey ba may ànd ak moom politique amul. mu doon jóge kaset fii ak nooto di ma fekk si sama biir cabinet boobu 2000 sax jotagul kooku yàgg na kon tey su fekkee boobu ba tey ñu continuer di ànd ànd loobu rafet bii dafa fekk rek kon lañ doon wax suñu diggante dëgg la ba tey amul lu mu nuy def wala ci lu muy dugg. te duma ma woo laaj ma sama avis ma jox ko ko te ma rafetlu ko di nuyu jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci département bi di nuyu sama mbokk waa Xombol ndaxte soxna Mbéri su ma la nuyoo rek nuyoo naa waa Xombol yëpp di nuyu sunu rakk sunu xarit. mi nga xam ne moom tam moo jóge xombal monsieur Lamine Gueye di jàmbaar ku am fit nangoo liggéey ba pare xoyof monsieur le ministre conseiller Mouhamed Diallo. waaw waaw sama waa jàngoog. lii mu def nii tey du lu yomb weeru koor bii ak ni mu xate ci weekend ci homme politique su déplacé yow ñoo ko fii am na lu kon xam leen ne kii am na lu rëy lu mu leen defal nit ki nag su la defalee lu rëy jàppe ko nu ko kenn jàppewul di nuyu nag tey dama ànd ak sama rakk. soxna Sofiatou Diallo muy directrice 3FPT. Mhm. président de la république dafa am ay leviers yu am solo yoo xam ne daf ko teg pour jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi. parce que président de la république dafa xam ne jigéen ñi ak ndaw ñi bokk nañu ñi ëpp importance ci Sénégal jigéen ñi nekk nañu soo jëlee téeméer yoo gis juróom fukk ak ñaar ay jigéen lañu. kon ku bàyyi jigéen ci ginnaaw perte nga waaye jeunesse bi maanaam xale yi ñoom ñooy Sénégal tey te ñoo nar a nekk Sénégal ëllëg président de république xam ko Sénégal gii ñu nekk nii téeméer boo gis juróom ñetti fukk ak ñaari yi amuñu ñeent fukki at kon xam ngeen ne dëkk bi dëkku ndaw la président de république nag am levier bu am solo. muy formation parce que tey balaa ngay wax naam ne fa ku fi bëgg ne damaa bëgg liggéey te amoo xam-xam amoo liggéey ci sa loxo soo demee di wuti liggéey doo am liggéey wala liggéey bu ñàkk ñàkk xalaat ngay am su defee tuuti ñu daal di lay xeeb kon nag formation boobu gën leen jege structure yi nga xamante ne ñoom leen di jàppale ci formation bi te loolu 3FPT am na liggéey bu mag bu mu ciy def ndokk nag ba mu nekkee koo xamante ne doomu Cees la nekk suñu jigéen nekk suñu rakk di nag wax ne man dama ànd ba may ñëw ak kenn koo xamante ne moom la ñuy wax avocat des daara muy maître Abdou Kane maître Abdou Kane insaan lépp lu muy def daara yi rek tax mu koy def kon tey suñu ñëwee ci journée bu mel nii ma ànd ak moom dinañ ko tudd ma ànd ak sama benn rakk aussi boo xamante ne ni ma bàyyee woon xel directeur général Abdoulaye Dièye di ko wax ba yàlla jox ko moom it noonu laa ko bàyyee xel muy Ousseynou Diouf di ñaan moom itam ci diir bu gàtt la ma war a am ci mbir mi mu am ko ndax ñu bari dañu xamul ne politique xale yi ñoo ko moom mag ñi dañ leen di gunge waaye nag nit ki soo gunge nit ba pare di xëccoog moom kon li ngay wax du dëgg ci yow waaye may leen ko loxo gi ñàkk na ki ñaan waay waaye Pape Amadou dundal ko wér nañu xeejal xale yi xeejal jigéen ñi mag ñi gunge leen su xale yi amee fit daal di wéet ñu daal di arrière bàyyi leen ñu continuer loolu mooy liggéeyu politique du leneen di wax nag président de la république Macky Sall mooy sunu candidat xam nga nit suy wax wax ji layam layam yi waxam dafa leerul ñun dañu ne sunu bëgg-bëgg la ñuy wax mais nit ki bëgg-bëggam nag sañ-sañ la waaye kenn moo mën a wax ñëpp nangu keneen ku wax dafa wax xalaatam muy cour constitutionnel maanaam cour constitutionnel moo mën a wax ndax président candidat la wala du candidat la su nee candidat la ñun mooy sunu candidat su nee du candidat nag ñu wuti candidat waaye tant que waxul ku wax danga nga wax lu la neex te ñun suñu wax suñu lu ñu neex ñun mooy président Macky Sall na nekk candidat ku jóg taxaw nag ne dama bëgg taal dëkk bi ndax su kii nekkee candidat ma taal dëkk bi ñaara tax benn da ngaa ragal te wóoluwoo sa bopp beneen bi li ngay wax dangaa gëmul yoon soo gëmee yoon gëm sa bopp cour constitutionnelle lu mu wax ñu nangu su cour constitutionnelle waxee ba pare taxul nag nit ki nekk candidat moom mooy nekk président li si des nag nit ñi ñoo ko war a def élection yee weesu dañ nit ñi dañoo bañoon ne président la république bi ba ba woon Ablaye Wade warul nekk candidat nit ñi reyante xeex waaye ba ñu demee ba ci biir ñëpp xam nañ ne suñu xamoon kenn du xeex ndax kenn du dee ndax réglé nañ problème bi nuñ ko réglé ba élection jotee ñu jox ko président Macky Sall kon nag nit ku ne day jàngat xam nañ ne. nekk candidat bu taxul nga nekk président président de la république na ñëpp jàppale ñun mooy sunu candidat mu bëgg ko mooy sunu candidat mu bañ ko mooy sunu candidat te mu lu ñu mën ak lu ñu sunu doole may dinañ ko def ba teg ko ci su fekkee conseil constitutionnel nangu na ko Sénégal nag dañu jëm foo xamante ne sëlëbe yoon la mu am solo ndax pétrole ak gaz la ñu toog muy loo xamante ne suñ ko defee ca lañ ko war a defee muy njëriñ ci askan wi suñu xuloo taal ko muy safaam ci askan wi ñun nag dañoo bëgg mu nekk njëriñ ci askan wi te pour mu nekk njëriñ ci askan wi dañ koy jox ki ko xam pétrole ak gaz yàlla def na ci ñi ko gën a xam ci Sénégal président Macky Sall ci la bokk ndax da koo jàngit ba ko waree jàng dénkal ku la neex mayal ku la neex waaye dénkal ko xam te nga wóolu ko président Macky Sall xam na pétrole wóolu nañ ko ndax def nañu gis ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaam di leen sant di leen gërëm wasalaam